moom moo ñu ko sant bi ñu caméra ba ma sant. mi jaay doole lañ nekk dañuy jaay doole. bu jamono demee ba police jaay doole jaay doole la. jaay doole askan wi leen di war a nekkal. waaw kay affaire jaay doole lañuy def mi ngi nii rek. ñëw kër jaamu di daggal fii affaire jaay doole. convocation ngay indi loo ko jox borom ñu dem affaire muy wuy dama réew jaay doole nañ dem ñu def ñu ñu Canada ñu mën dara bu ku ci mën nag na war a yaar waaye du billaay damay na damay wax damay def ku ci mën dina war a rey ku ci na war a bu leen ko bu leen ko fi bu leen ko def dara lu ñaaw nag. non da ngeen sañ def dara lu ñaaw bu leen ko jaajëfale bu leen ko def. bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal laal bu ko laal. ay si doon ba pare ay da ngeen koy da ngeen koy def. da ngeen koy def. jaay doole la ñuy jaay doole. réew jaay doole la ñuy def tawal ko si yoon. jaay doole lii jaay doole la. jaay doole la jaay doole jaay doole la jaay doole la tawal ko si yoon. jaay doole ngeen jaay doole jaay doole. jaay doole dañuy jaay doole ñoom jaay doole la ñu. ko gëm dina ma ko yokk. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole.